man maa ngi tudd Mariam Soda Ndiaye bokk euh, ci coalition Diomaye président di ñëw di wax ak suñuy député ginnaaw bi ma nuyoo mbooloo mi fi teew yépp di wax ak suñuy député pour ne leen tey soo demee ci règlement intérieur assemblée nationale ci article cent dañu ne le député est un représentant qualifié de la nation maanaam ñun citoyens yi dañoo jël suñuy li ñu sañuy sañ-sañ suñuy àq ak suñuy yelleef dénk ko suñuy député kon nag ñooñu bu ñu tolloo ci moment yi nga xam ne Sénégal dafa soxla boppam Sénégal dafa soxla ku ko taxawu Sénégal dafa nar a dugg si ay liñ naan moment sombre war nañu wax ak ñi nga xamante ne ñun ñoo leen tabb yóbbu leen fële ñuy naseek di fa nocce moo tax ñu leen di wax ni yéen suñuy député député Sénégal ngalawaay bu leen ubbi li ñu naan la boîte au ndax tey suñu ubbee cet boîte au xam nañ fu muy tàmbalee wante xamuñu fu muy yem ñoo ngi dégg ne de élection yi si loi bi ñu proposé dañu indi pour dat vingt cinq août vingt cinq août boobu xam nañ la ñu cay xaar ña ngay wax nawet ña ngay wax ay événement yu war a am te yéen itam comme yéen a ngi ubbi boîte pandoor boobu le 12 septembre 2024 mën nañ ne à tout moment seeni mandat de député wala assemblée nationale bi nga xamante ne moo ñu fi teewal mun nañ ko dissoudre à tout moment kon nag bu leen ubbi la boîte pandoor yéen a ngi dem si report élection wante bu leen xam yan dëgg sërëx lañ leen di sërëxal ba nga xamante ne di ngeen ubbi wala di ngeen am way woo xamante ne dootul fay ñu leen di fàttali ay kàddu maam Abdou Aziz Sy tey lu ngeen fi voté suba di ngeen teew si yàlla te di ngeen ko fa leeral ñu leen di wax ngeen am taxawaay xam ne askan bi di Sénégal dafa nekk askanu jom dafa nekk askanu fulla dafa nekk askanu fayda bu leen nangu nekk ay instrument maanaam ñoo xamante ne dañ leen di utiliser pour tey tëral démocratie fii si Sénégal pour tey tër démocratie fii si Sénégal Afrique mu ngi leen di xool Sénégal mu ngi leen di xool peuple bi nga xamante ne ñoo leen fa tabb yóbbu leen itam ñu ngi leen di xool jël leen seeni égo fóot ko ba mu set liggéey ngir intérêt Sénégal parce que fu mu toll nii Macky Sall li mu bëgg a def mooy suul démocratie ci Sénégal te bu boobaa dina fi toog abadan daay man te ñun ñëppay pet li xale yi naan suñu yarwaan loolu la Macky Sall bëgg a def te ni ko suñuy député defee woon 23 juin 2011 yaakaar nañ ne am ngeen taxawaay boobu yaakaar nañ ne mëtale ngeen taxawaay boobu ndax askan bi leen dénk fépp fu seen rongañ xonxe ñoom dinañ toog seen wet ngir accompagner leen ñi ngi leen di wax itam ne soyez pas les complices de cette manœuvre politique et politicienne du régime Macky Sall pour prolonger son mandat tey lenn rek la nga xamante ne digéré wu ko mooy li askan bi taxaw fexe ba deful troisième manda day ñëw si discours am yëpp yi nga xamante ne wax na ko bu nee naa mu ne man maa bëggul def troisième manda aha kañ yéene woon na ko def waaye askan bee taxaw fu mu toll nii nag lii des yéen a ko war a mottali kon nag ñu ngi leen di ñaan ñun askatu Sénégal ñun seen ay doom ñun seen ay baay ñun seen ay tante ñun organisation syndicale ñun parti politique ñun ñun ñun askan bi ngeen bàyyi ñu xel te bu subaa projet bii nga xam ne c'est un projet funeste pour la République du Sénégal nga xamante ne ko xamante ne Abadan Daïman il est rentré dans l'histoire funeste où il est devenu funestement célèbre ndax lu musul am ci Sénégal mooy ñu toll ci élection présidentielle ñu ne duñ ko def parce que lan ay suspicion boroom kër nag dañ ko tàmm di wax boroom kër day mën a onk tey doon nañ d'accord ñu ne ah dajale nañ élément yëpp dajale nañ li ñuy wax yëpp ah lii kat naam am na lu am am na lu am waaye sur la base de suspicion kese nga ne da nga nar a dax élection lëmm loo xamante ne ay ati at at nit ñi ñu ngi koy xaar loo xamante ne Sénégal dafa nekk vitrine de la démocratie dafa nekk vitrine aujourd'hui des opinions vitrine de la transparence et de la régularité des élections yow loo xamante ne Senghor defu ko Abdou Diouf defu ko Abdoulaye Wade defu ko ñëw organiser élection dem bàyyil ñu fi suñu réew yow nga ne déedéet ah ah man maay kooku nga xamante ne man maa dëgër bopp man maa ñeme man maa sañ moo tax ñuy o suñuy député ne leen taxaw leen taxaw temm ñuy o suñuy député ne leen am leen fulla am leen fayda xam leen ne Sénégal moo ñu sut te suba way day rafet te suba nettali bëgg nañ suñuy doom ñu ne leen ba ñu tolloo deux mille vingt quatre amoon nañ ay député yoo xamante ne taxawal nañ ñu comme suñuy député nit ñu taxawaloon la vingt trois juin loolu la ñu amoon lu nga xamante ne bëgg nañ ko yeggee député yi bëgg nañ ko yeggee askan bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. waaw jërëjëf euh, Marème Soda di ñaan rek suñu mbokk journaliste yi nga xam ni ñu ngi soog a agsi ñu jël seeni téléphone def ko vibreur gis nañ situation dëkk bi xëy na moo tax ñenn ñi yéex a agsi ah, dañuy wéy rek ci kàddu yi gannaaw ba Marème Soda def appel bi nga xam ne jëm ci député yi ngir ñu bañ a bokk nekk complice ci ñuy suul démocratie ak état de droit ci réew mi dañuy jàll ci li nga xam ni moo di xew-xewu bés bi tey donc ànd ci ak docteur Cheikh Dieng merci beaucoup maître de cérémonie asalaamaaleykum te gis nañ Sénégal yëngatu na Dakar yëngatu na parce que askan wi taxaw nañ ni décret bi nga xam ne président Macky Sall signé ko démb duñ ko reconnaître dañ koy rejeter dañuy dem campagne électorale kon campagne électorale bi commencé na tey Sénégal ñu bëgg féliciter tous les leaders de les candidats xam te dañoo jël décision yi dañuy def une ouverture simultanée ñoom ñëpp ñu ànd Saint-Lazare gis nañ li ci topp police euh, police gaz na leen am na ñu ci arrêté depuis bi sunu fédération yi nekk à l'intérieur du Sénégal tàmbali nañu campagne électorale comme ni ñu ko loi électorale mayee loolu ñun waa Diomaye président dañ ne campagne électorale bi tàmbali na depuis démb a minuit dina dem ba le vingt quatre février à minuit képp koo xam ni da section fédération ak foo man di nekk ci Sénégal dañ laa sant nga dérouler sa campagne électorale selon le calendrier bi nga tëraloon décret bi président Macky Sall signé démb taxaw benn yoon processus électoral bi nga xam ne démarré na ñuy masawu nag sunu responsable yi nga xam ni tey arrêté nañ leen ci ab délégation jóge na fi léegi dem seeti Mimi Touré am na yeneen candidat yoo xam ne arrêté nañ leen ku ci nekk ñu ngi lay masawu mais ñu xam ne ñoom ñoo nekk ci dëgg ñoo nekk ci yoon parce que ils sont dans l' exercice de leur des droits qui leur sont reconnus par la loi électorale et loolu bumu dakk benn yoon fii